rëg-rëg moo Gris 2 rëg-rëg ak Gris avant ñuy bëri nit ñi ku ci daan da ngay dem ci VIP par force yow loolu wax si loolu. waaw egg nañ wax dëgg yàlla egg nañ parce que dugal nañ fi lu nit dugal dugal nañ fi lu mbër dugal dugal na fi kon ambale lu mu dugal keroog boo xool làmb amateur yëpp dañuy ñëw seetaan si kon làmb neex la wax dëgg yàlla kontaan nañ daal si ñaanal di encouragé Gris 2 naa di ko ñaanal jàmm naan rëg-rëg di félicité rëg-rëg. rëg-rëg moom noo ko gisee. waaw nu ma gisee rek la nu ma ko gisee euh, doon nañ daje Tivaouane Pël. ñu nekk si entraînement yu méttee méttee wax dëgg yàlla. maa mu nekk mbër boo xam ne yàgg naa kaa wax nee na Reug Reug euh, ku nañ ko bàyyi xel parce que diiru Tivaouane Pël yi ku si def six mois six mois lañ si def man Maalo Sa Fandum gars yi Alaaji Mbay moom moom euh, jiitoo nañ ko deux mois quatre yëpp mu nekk si te dama doo gis mbër bu si nekk da ñëw daw moom mu ñëw meñcee ko waaw meñcee ko ñu ndox ñu may ko par exemple ñu ñëw tamit ñaan ko ndox mu may ñu xam na gisoon naa daal champion lay doon wax dëgg yàlla. kon li mu def samedi la yow. non non ma franchement. Mm, bettu ma dëgg yàlla. mbir ma nag daa jeex coow li mu tuleeg man la ci réew mi promoteur bi ne Ama su bëggee ma jox ko rëg-rëg léegi amateurs yi ñen ñu bari na diggante Ama ak rëg-rëg dégg nga coow loolu. waaw dëgg naa ko c'est normal xam na tamit tamit mbër la wax dëgg yàlla c'est normal am na loo xam ne tey duma ma ko blâmer benn mbër. parce que tamit man ba may doog a dugg si làmb dama cité ay mbër yoo xam ne bëreeguma ak ñoom dama taxaw ne jox leen ma bombaay gars yi tiit ne booy bi dafa dooj te pourtant maa ngi def ndànk-ndànk ba tey bis bis ñëw na ñu dem ne euh, euh, bombardier yaag Ama Baldé comprendre kon tey man tey mbër bu ma ko defee amul dara loo xam ne dama koy ñaaw dama koy rafetlu bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax xam ne tey am na mbër yu fi nekk ñu bëri kenn tudd leen kon Ama Baldé la ñuy tudd alhamdulilah damay sant yàlla bu baax. mais sa diggante Reug Reug am yoo xam ne rêve la Reug si kanam am na xam ne rêve la am na xam ne yow tey boo tëddoon ba guddi ñu ne la aam ak diw wala diw ak diw da ngay jàpp ayre hmm. waaw xam na tey tey tey moom champion la. man du ma balaameel kenn champion am comprendre tey mënoon nañ daje géej contact mu daan ma mënoon nañ daje si boobu mu daan ma comprendre mun na maa daan mun naa ko bu sonn kon kon làmb kon xam dafa nekk milieu boo xam dafa métti waaye Ama Baldé moo ñu fi pour ñëpp comprendre. waaye nag Reug Reug la ñu coow fan yii de démb ak tey ak bërki démb moom ak fan yii di ñëw moom Reug Reug amaa la coow li mel ni ma la ko waxat journaux fépp ñu ngi ko fay coow. non wax dëgg tey dafa nekk loo xam ne am loo xam ne dama lay damay nawloo caméra am yi yow lay respecté tey moo tax sax may wax si waa Reug waaye tamit dama ne la àdduna amul kenn koo xam ne damay toog di ko xeeb. xeeb ma kenn waaye dama ne l'essentiel mbër la kon man ba may doog a dugg si Papa Sow ba may doog a dugg ah, di baal Balla eh, kii Tafa Gueye de dama joxoñ Balla Diouf saako dama yàlla baal ah, ah, kaf Papa Sow tam ma waxoon ne leen daa daje yéen dàq seen kaw bis ñëw na ñoom ñaar ma daan leen te maman doon wax am na dix ans may doog a fii ku mu nee wax dig dugg lu mu nee wax parce que moo yor xaalisam du dëgg moo xool produit boo nee wax l'essentiel lu jenn maanaa man xam naa ko yenu maanaam yow xam na ko yenu maanaam sénégalais yi xam nañ ko waaye dama l'essentiel mbër yëpp mbër lañ amul kenn loo wax tey suba ne ko waxaat moo ñu mel ne kon lu ma la waxoon ne du ma ane balance juróma ko en balance tey wax na ma ko kon tamit tey du ma taxaw ne damaa xeeb rëg-rëg bugguma bëri rëg-rëg suba tamit ñu tegal ma ko te tamit nit ku nekk góor la l'essentiel champion la du ko ñaanal yàlla na yàlla carrière am kon ni bu demee nag ba carrière mu continué man dama sama carrière continué bu ñu waree daje rek lañ daje ku ma si war a daje rek naa de waaye dama lay l'essentiel quatre vingt laa xale bu ndaw 90 nga jur. waaw xale mu ndaw laa. yéen ñaar ku mag kon. non ne bu bu bëgg bu ñuy débat ñuy débat si ay yaag diw ak diw ku mag ay yaag diw ak diw waaye Reug Reug wax dëgg yàlla nekkul débat ay Reug Reug ñoo dama mag Reug Reug wala maguma Reug Reug. dama lu ma dégg nag dégg naa fi mu ne gars yi ñemewuñ ko de parce que dafa doy waar de dégg naa mbur mu doy mën na lit simple bi lit avec frappe bi te daanoogul gars yi nag ku koy daan la wër te est-ce que dina yomb pour am ko. waaw dëgg la fii nekk tamit mbër bu nekk da nga koy wax qualité champion la champion la bu baax a baax du ma ko nangu ko parce que ba may dangeen dégg moom diine di ko di ko dangeen moom dama naan ko góorgóorlu boo góorgóorlu dina am lii am lii kon tey bu kontaan parce que sama wax sax bul dara sama ma ko doon wax gis naa ko tamit moom bu tëddee war kii ni nga xam ne wax bu am bal doon wax gis na ko comprendre waaye nekkul ma ak Reug si war a parce que nekkul nekkul euh, Reug ma tax a jug Reug Reug man tamit taxuma kaa jug comprendre kon nañ nekk suñu yoon rek xam nga ànd na moom boo gisee xool sax xool da ngay gis ñu def nii dox ba daje ndax xool moo gërëm a mag si nii ànd na dox ba daje la rek buñ dajee ñun ñëpp cappaandaw bi nañ xamante nañ xamante ñun ñëpp muy mbër yëpp nag amul kenn koo xam ne naa ko si mais fi may jeexale ama lu lu parce que tamit damay dégg say supporters xam naa dañ laa bëgg ba tax ñu ne mbëri dañ laa ragal moo tax jëluñu la ba nga def année ba a def balance mbëri dañ laa ragal da koy confirmer kenn ragal wax dëgg yàlla waaye tey ay kontaan bu baax a baax naan sama fan si boo léegi ñoo may woo bañ déggee li Nicolas wax ñoom ñëpp may woo waaye nañ comprendre ne àdduna noonu la àdduna noonu la tey bu ñuy xëy di tudd ni rek nañ sant yàlla bu nekk di xiiroo di mel ne li Nicolas di teel teel fii di wax di Nicolas comprendre rek Nicolas su am la def su am la def fii tamit tey man tey su ma xëyoon suba sumeeku ba set yaramu neen ba set tey journaliste yëpp dañ may bind li Nicolas xëy na loolu la si bëggoon pour journaliste la li li li xam a grand bi dafa xaw a kii isa comprendre na waaw loolu rek la si bëggoon waaye xelam ak na sa xalaatul loolu waaye tey dafa bëggoon grand bëgg ñu tudd ko parce que loom xam na du ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm rek kontaan